fii ci résidence Khadimou Rassoul nekk ci Colobane gannaaw bi mi di weesoo ñi ñi di dugg ak génn ci biir ñi nga xamante ni ñoo di jullit ñi bàyyeekoo ci ay gox yu fësante ko ci biir capitale bi ak ci biti dañoo yow fii ngir nag amal seesi fi seen ziyaara ci kanamu xalif général kullu murid sant yàlla xam ne yobal xëyaam nii lañ fay jàlle ñu ñëwee fii ak mbégte dong lan lan lan am. am mbégte lu rëy rëy maa ngi am mbégte ci sëriñ bi di am mbégte ci woote bi mu woote. sëriñ Mountakha dafa ñëw ci ndakaaru bile ni ki démb ci dimanche bi ngir nag jiite lii di ubbiteeg juma Masaalikul Jinaan mu doon njëriñ bu rëy ci ñi nga xamante ni ñoo di jullit ñi ñu nag fësal seeni kóolute jëmmale ko ci xalif bile. sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. ci jéego yu mu jëlee Touba ñëw kon dimbali ñu rek moo ko fi indi ñii ñaan ci kantanu yàlla ak mbaaxu Serigne Touba yàlla nañ ko fi yàlla bàyyil. mu doon ay waxtu yoo xamante ni itam fësal nañ fi mbégte waaye itam ab xol bu tooy. dañoo invité dañoo kontaan ba xamuñu sax lu ñuy wax dañoo kontaan ba xamuñu dara lu ñuy wax. ñun waa coono waa Dakar ñun waa Dakar sant rek lañ am dolli sant Serigne bi bu wér a wér. ndax lu toll ne xalifa Serigne Touba bu ñëwee Ndakaaru fii kon ñun suñu xel dal na. ñoom ñii di taalibe yi sax ne noppi nañ ngir nag ñëw fekkee ci cérémonie bi nga xamante ni ci la war a ubbee juma bu mag bu Masaalikul Jinaan. jumaa gu Saalum bii ni ñu koy ubbee yal na ci xéewal yu baree baree topp ba comme ndamu Serigne Touba la yàlla nekk ay ndami ndami ndam jumaay jumaay jumaa. Euh, moom it ñuy waa daayira bi ñun ñëpp ñu ngi koy waajal ndax waa daayira bi itam fab na seenu ñaq bërki démb dem yóbbu ko Masaalikul Jinaan la rosi baa ngi nii suba itam bu ñu xëyee li na am waa daayira bi dee na ko indi fii ci Serigne Touba. waaw ñu koy waajal bu baax a baax a baax incha allahu rabbi ñu koy waajale ajjuma ji bu soobee yàlla ñun ñëpp bu soobee yàlla fa la ñuy jullee bu soobee yàlla bu ko yàlla dogalee. ñu ma koy waajalee fas yéene rek fuñ nee jóg leen rek ma jóg ba keroog bi jeex. murit loolu rek lay déglu. doon xew-xew bu rëy boo xamante ni dinañu ko amal ci ñaar fukk ak juróom-ñaareelu fan ci weerum septembre bi ñu nekk ñii nga xamante ni ñoo di taalibe yi dañoo gaaw bu fees dell ci résidence mu Rassoul bi nekk fii ci kolobaan fii nga xamante ni nag ci jamono yi may wax ak yéen xalifa général kullu murit Serigne Mountakha Mbacké ibnu Serigne Bassirou moo fi nekk ngir nag di xaarandi bés boobule.